gaynde yi am nañu lu nu coppati loo xam ne daanaka duma leen ko mën a wax waaye dama leen di junj ah, ginnaaw ba nga xamee ne am nañ victoire bu set bu sell ci équipe bi nga xam ne ah, mooy Qatar yi di kàkkatar yi nga xam ne ah, ñi ànd xam ne mooy Yiliman Ndiaye démb may na leen ñu ànd ak ñi nga xam ne ñooy seeni soxna wala ñu dajeek ñi nga xam ne ñooy seeni soxna journal yu bari andi nañ ay gone yu ndaw di doomi suyéer yi nga xam ne ñoom lañ def ca kaw fa affiche ya waaye nag gën naa xóot loolu ndax daje nanoog seen i jabar ñi nga xam ni amuñuy jabar daje nag ña nga xam ni euh, ñooy seeni cër loolee nag falaa ca ci information yoo xam ni euh, daanaka yebbeeku nan kon Yilimaan Njaay moo nekk noonu ak soxnaam ak ki nga xam ni euh, mooy doomam ci ñoom ni nu koy waxee ci wàllu tubaab Ismaïla Sarr Iso doomu Ndar bi tamit daanaka daje naag Charmante fiyam bi nga xam ni mooy gone bu jigéen gi nga xam ne mooy doomam tamit ak soxnaam tamit ba nu dajee tamit waxtaan nan lu bare bare loo xam ni daanaka ay ñaan jub na fa ñaan yooy nag ña koy xaar incha allahu ci talaata bii nga xam xam ni moom lañu dëgmal bu Sénégal di football ak Équateur mi nga xam ne ah, daanaka ñaan danañ ko fa soxla lool Idrissa Gana Gueye moom it ngeen gis ko noonu daanaka ah, mu nekk seen côté càmmoñ ci li nga xam ne moom la ñuy xibaar moom it daanaka ah, daje na ak nga xam ni ñooy ay goneem goneem yaa ngi ci a ndaw nag di Isaac keneen koo xam ne tamit mi ngi ci biir xibaar yi di Kalidou Koulibaly nga xam ne daa mekk doomu Matam bi mi ngi noonu ngeen gis ko moom it mu nekk ci li nga xam ne mooy xibaar yi ànd ak ay goneem ñoom it di nemmi koog ñoom daanaka su soriwut ak nemmeeku tour lanu doon def fële ca Qatar eh, ci gàttal daal gone yi eh, bég nañ seen xol sedd na ci victoire boo xam ni eh, yebbi nañ ko seen diggante Qatar te def nañ seen entraînement ginnaaw ba nga xamee ni jóge nañ ci loolee lépp entraînement ba nag fatt na te rek entraînement boobee tamit daanaka wàcc nañ ci ay coono yoo xam ni yu am solo la loolee bokk ci li nga xam ni gën naa fes ci xibaar yi nga xam ni moom lañ leen yebbil waaye ci kanam tuuti ña ngay togg xibaar yoo xam ni daanaka mooy gën a yoo xam ni lépp ci équipe nationale Sénégal daanaka mi ngi yëngal àdduna bi dem ba tey ci bii boo xam ni daanaka bii classe mondiale la